asalaamaaleykum mbokk yi teel a alxames fanweeri fan ci shawaal muy weeru kori di fukkeeli weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo juróom-ñeenti fan ci weeru mai ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent fanweeri fan bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci alxames ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ko ca daloo alxames ñu nekk suna la ci ku ko man mu wóor ñaanu bis bi maa ngi muslu ci waati yàlla yu mat ya ci ayu lépp lu mu bind أعوذ بكلمات الله التامات من a ما خلق أعوذ بكلمات a التامات من شر ما خلق xadiisu bis bi yonent na képp ko wàcce ci ab bërëb daal di jàng ñaan gi aoudu bi kalimaatillahi taammaati min charri ma xalaq du ko mën a lor ba keroog muy jógee ca bërëb boobee xadis bi muslim nettali na man nazala manzilan suma qaal audu bi kalimatillahi tammati min charri ma xalaq lam yadurrahu cheyun xatta yartaxila min manzilihi dalik rawahu muslim waxtu julli yi suba waxtu dana tab bi 5 heures 27 juróomi waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñaar tisba 13 heures 30 benn waxtu wu tegal fanweeri simili takusaan 16 heures 30 ñeenti waxtu tegal fanweeri simili timis 19 heures 26 juróom-ñaari waxtu tegal ñaar fukki simili ak juróom benn gee ñetti waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom-ñaar loolu mooy waxtu julli yi si Touba ak li ko